mbokku senegal mbacke burum bax dik na ngir jàppalante ak yeen ci jafe-jafe yi ngeen amé jëm ci walu jafe-jafe aduna ak surtout walu ñaan mom sëriñ bi mbacke burum bax dina yëngatu ci walu sét sétu ramlu moma ci doy ngir jafe-jafe yi ngeen am ak li nekk seen kanam ngir ngeen mën ko fank ñu né ndax fofu la yam ñu né déedéet mom mbacke burum bax mi dina yëngatu ci walu listikhar à distance nga xamné du jarati ngay déplacer wu di ñëw jokkol ak mom rek mu défaral lako ci anam gumu gëna yewé né bismillahi irrahmani irrahim wa inni aizuha bika wa surriyataha min asheytaan irrajim rabbi auzu bika min amasati sayatin wa auzu bika rabbi an yahdurun mbokk yi ni bàyyi xel fu mën a nekk ci réew mi moo xam ñu nekk ci réew mi wala ñu nekk bitim réew ñoo ngi leen di wax de asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bi ñu sant te yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax ci topp ngeen topp vidéo yi mbokk yi tey nag dañ leen fasiyene yéene indil benn secret boo xam ne secret noob la secret noob gu doy doy war sax xanaa bala ñu yaatal dañ lay wax yow mi nga xam ne da ngay gan ci passe bi boo abonné gun nga abonné te partage vidéo yi mu gën a yaatu ndax vidéo yi ni dugal ci scène bi yëpp ay vidéo yi njëriñ kese la te njëriñ moom nu mu gën a yaatu rek ci la gën yow mi nga xam ne da ngay gan ci passe bi te bëgg ku la defal li ci xaar dañuy def li ci xaar à distance man nga ñu contacter ci benn ci ñaari numéro yi rek incha allah dis na la defal li ci xar bu leer kon mbokki secret bi ne indil tay mooy allati ahsanat farjaha fa nafaxna min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kitaabihi wa kanat min alqanitin moom ngay bind nii nga ko gisee nii nga fexe ba ubbi miim yi nekk ci biir yëpp nga yaatal ko fexe ba xadaat sa turu ki nga xam ne moom nga bëgg suñu borom gëna a dëgër seen nyari ak seen ñaari turu wajiru jigéen nga xadat ko jël xadat bi def ci biir bo noppé ci loolu nga fexé ba jël téré bi wut doomu soble doomu soble nga jël téré bi nga def ko ci biir boo ci defee boo noppee nga dem ci béréb bo xamné dafa baxo toy toujours nga sul ko fa inshallah allah kër bi yéme kon li moy secret bi ne tay assalamu alaykum wa rahmatullah mbokku senegal mbacke burum bax dik na ngir jàppalante ak yeen ci jafe-jafe yi ngeen amé jëm ci walu jafe-jafe aduna ak surtout walu ñaan mom sëriñ bi mbacke burum bax dina yëngatu ci walu set setu ramlu moma ci doy ngir jafe-jafe yi ngeen am ak li nekk seen kanam ngir ngeen mën ko fank ñu ne ndax fofu la yam ñu ne déedéet mom mbacke burum bax mi dina yëngatu ci walu listikhar à distance nga xam du jarati ngay déplacer wu di ñëw jokkool ak mom rek mu lako ci anam gumu gëna yewene, a ci lu jëm ci walu ndomba mom bi di ci yëngatu moom Mbàkke borom baax ndomb yu am solo la leen di jox yu yéeme lool nga xam ne ku ko takk ku ne doo faatu mukk si ndox ah mbokk yi loolu lu am solo la jaaro bayre yi nag ak ubbiiku moo ma ci doy moom Mbàkke borom baax dina la ci dimbali ndax loolee rek la mëne lu jëm ci wàllu jaaro bayre nga xam ne ci jonn yàlla tey jilee danu koo yittewoo ak ubbeeku ku ne bëgg ngaa ubbeeku ci sa bërëbu liggéeyukaay ak àdduna ba wër sa gana si la sëy li muy tas bëri na te kër yi yëngu loola ci lu jëm ci wàllu boole jëkkër ak jabar wàllu nopp sëriñ bi moo ma ci doy doy moom Mbàkke boroom baax dina la ci dimbali ci anam gu mu gën a amee solo wàllu tukki nag moo a ci doy yéen ñu bëgg wàllu këyit te mu jafe yéen ñu nekk biti réew te am këyit jafe leen itam Mbàkke boroom baax mii moom ma ci doy gaaw leen gaaw jokkook moom ma adresse am benn rek la mi ngi ca Touba Mbàkke woo leen ko ci 77 684 28 28 wala ci 77 668 28